comme euh, comme niñ koy gissé ci aduna bi yépp ba Sénégal aussi comme son excellence le président de la république waxé ne ku nekk fexé ba jël ci ñak yi nga xam ci moy Covid 19 bi pour moytu mbass mi mu jeex ci aduna bi euh bam duggé ci région de Louga dugg ci district bu Kokki euh, Thiamène aussi jot na wàllam ñoo ngi nii tey def lancement bi ah, ki nga xam moy ñëk ñakuma nak moy euh, ICP bi nekk infirmière chef de poste muy Soukeyna Fall madame Wade moo koy defal. pour ñu wan nit ñi rek ne lu wóor la mi ngi nii ñu bind Covid 19 euh, seringue baa ngi nii muy jël pour nit ñi xam ne lii du ay caaxaan te jàngoro ji lii rek moo ko fa mën a jëlee. ñu xam rek ne ñu ngi koy def sous la présidence des autorités ci dëkk bi euh, muy euh, le maire nga xam ne jaar na fi tey suuf mu dem. la présidente de l'union locale des GPF Aya Aram Diop euh, représentant des chefs de village gis un ko léegi muy représentant des imams Mingifi ngi fi euh, relais aussi Mingifi, ngi Matroni, euh, matrones yi population bi ñëpp leen représenté ñi fi kon ñu comme ni l'avons ko waxee rek kon lancement madame Diallo jël Euh, madame Diallo sa premier mot après bi nga jëlee injection bi tey di journée historique boo xam ne histoire na ko jël Soukeyna Fall madame Diallo. waaw asalaamaaleykum may nuyu kenn ku nekk turam ak askan di jaajëfal ñi fi teew yëpp mooy autorité ak élu yi di kontaan bu baax ci vaccination bi nga xam ni boobu ba léegi ñi ngi xeex mas mi mënuñu ci mënu mënuñu ko fi jëlee te vaccination bi nekk part bo xamni ni buñ incha allah buñ si sooboo rek yalla mën na def ñu jëlé ci euh, ki bi mbass mi fi gox bi ci Sénégal gep di contane bu baax di wax ni ñëpp di invité ñëpp ñu ñàkk bu inshallah bu ñàkk yi disponible cible yëpp ñu convoqué nañ ñew ñu ñàkku ci autour de madame Wade Seynabou jaw <laughs> mom moy jël momit euh, ki koy defal moy euh, madame Diallo ñu wax rek mi ngi waxaat autorité yi. ñëpp ñëwoon nañ El Hadj Assane Top maire de la commune de Thiamène jaar na fi tey suba joxe ay impression am na ñëpp ñàkk moom it dina jël dose am incha allah rabi euh, wax nañ ko sànq suñu papp Baara Ndiaye nekk chef de village Ndoxali moom it mi ngi fi euh, relais yi ASC yi matron yi ñëpp ñu ngi fi toog pour def lancement bi tey nag ñu fàtte rek personnel de santé bi lañu wax lañuy ñuy ñooy jël ñëpp ñoo nga xam ne dañu jóg ci wàllu wér yaram nga xam ne ñoom ñooy ñuy accueillir malade yi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy euh, njëkk ñàkk ñoom nga xam ñoo am contact direct ak euh, ñi nga xam ne dañuy faju si moo tax tey après madame Diallo madame Wade mooy jël à son bi ñu ko enregistré ba pare léegi nag euh, nee naa sànq madame Diallo moo koy defal su paree nag euh, ñu continué ci ñeneen ñi won wu nit ñi rek ne lii du ay caaxaan du ay caaxaan lu am la te lii rek moo fi mën a jëlee comme xeex nañ ko lu nekk te monde bépp moo ko def te leneen li ñuy dégg-dégg intoxication bi la ñuy bañ ñi naan waaw. ñak li li li li président ñakku ak ministre bi bokut ak li ñi ñakku lolu du wax lolu li benn bi la ño bok ci fuñ génné <laughs> waaw léegi ñu ngi noonu euh, gis nga mi ngi def euh, tampon bi madame Diallo mooy jël injection am <laughs> waaw Soukeyna Fall defal na ko <laughs> madame Wade euh, nekk euh, sage femme fii ci poste santé Thiamène bi jël nga sa dose yow euh, ban impression wala yan kàddu ngay sànni askan wi surtout malade yi nga xam na si ëllëg xam nañ ku nekk dina jot dose am <laughs> di wax alhamdulilah rek émotion bee ma <laughs> di wax alhamdulilah rek alhamdulilah di sant ñëpp nag comme ni ko su koy waxee rek maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier ñëpp di wax ni rek nag population bi nañ am confiance te xam ni mbas mi comme que yàlla dogal na ba mu def ni trouvé nañ vaccin bi muy lu jafe woon nañ sant suñu boroom te bu loo bi ñëwee képp ku mu concerné na nga ñëw vaccine vacciné te bu si am benn souci di sant rek di santaat rek di gërëm ñëpp merci beaucoup merci euh, euh, ñu jàll ci comme niñ ko waxee Adja Aram Diop euh, présidente union locale GPF Adja Aram gis nga infirmière chef de poste bi jël na sage femme bi jël na li xanaa mën nga wax sa mbokk jigéen ñi dal na xel asalaamaaleykum alhamdulilahi rabil alamina maa ngi nuyu ñëpp nuyu personnel bi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax jigéen ñi gox bi ak goxaat bi mboolem ku nekk ci commune Thiamène ñek bi ñew leen jël ko man de dinaa ñàkk incha bu neexee yalla ndax xamna naa ñek bi moo mooy mëna yobbu mbass mbas mi moo ko mën a yóbbu ñu leen ci wo képp ku jigéen te nekk ci gox beeg goxaat bi ñek bi ñewal nga ñàkku ndax li wàññiwul dara day faj rek bu dul santé moom bu ci kenn duggal dara lu santé sa wërgu yaram ya ko wutal sa bopp président dañ koy sant di ko gërëm bi mu trouvé li nga xam ne moom añ na ko ci gox bi pour ñu jàpp ci pour ñu ñàkk ko su kay deuxième kii bu ñëwee man maay jiitu première man la man di naa ko incha allah bu neexee yàlla te woon naa jigéen ñëpp maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu chef de village yi nekk nag ay kilifa yéen ngeen ñaax seen bokk yi ñaax seen dëkkandoo yi ñëpp ñëw ñàkk ko li dara lu aay sant yàlla rek biñ ko trouvé maa ngi nuyu ñëpp. jërëjëf dañuy dem ci euh, suñu papa Baara. Ndiaye nekk chef de village Ndoxoli man na wax ci turu chef de village yëpp même bu fekkee Saala mi ngi fi dinañ ci ñëw moom Papa Baara euh, gis nga ñi yor wàllu wér-gu-yaram xam ne ñoo war a njëkk ñakku ñàkku ñàkku nañu pare lii xanaa euh, dal na xel ci nit ñi doon xel ñaar naan am naak amut. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu nag ñëpp kenn ku ne turam ak santam di dalal nag ñii fi ñëw indi fi li wax ne day joxe wér-gu-yaram. maa ngi wax rek ci chef du village su caa turu chef du village su caameen yëpp waaye li ñu fas yéene mooy kenn ku ne gox ba nga ne buñ la fa fekkee da nga taxaw yaak sa njaboot ñàkk ko incha allah bu soobee yàlla. jërëjëf Ndiaye al euh, ci kàddu imaam yi diine moom yàgg na santaan lu mel nii ndax suñu ko fàttalikoo suñu maam El Hadj Malick si radiyallahu taala anhu defoon na engagement bi nga xamee peste sonaloon na nit ñi ñàkk yi ñëw nit ñi xel ñaar moom mu.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 ndax niñ koy faral di waxe rek al wiqayatu khayru min al ilaj faju mo gën faju fagaru bala lay jangaro di dal mo gën nga bay bam dal ngay faju su ko defé kon duñu def lu du sante yalla gannaaw bi nga xamé ni covid bi ñëw na fi lembe fi depuis diir bi mu fi def bala ko di faagaagal lu bari ci adina bi yalla dogal ñu dem ba médecin yi gis vaccin bi nga xamné yaakar na né mom mo ci mëna ar aar adama yi ñu ñu fexe ba ñu jot ci loolu sante yalla la xana dañuy wax rek ne ñepp jema gor góorgóorlu jéem a jot ci vaccin yi jema vacciné wu ndax yaakaar nañu li rek mom moko fi mëna jëlé té comme ni nga ko waxee léegi rek maa koy wax école mele mbir mi bi mu melee ni bokku ci suñu kilifa yi ku joxe exemple bu rafet waré na kat ne li li wa kër docteur indi dañ ci wara and ñun ñepp ndax ñom seen domaine la comme seen domaine la lepp lu ñu ci indi rek dañ ko wara jël and ko gëm yàlla gu man ndax itamit nag suñ borom comme niñ koy waxee du bind ci fukk rey ci juróom-ñeent nañu wakkeer lo xam ne daf ñoo digal ne nañ faju faju nag mooy mooy waral lii nga def li nga war a def euh, fexe ba mbir mi du la dal moo gën nga bàyyi ba mu dal la ngay faju kon ñi ngi sant personnel de santé bi nga xam ne ak seen taxawaay ci gi ñu def pour mën a jot ci vaccin yi pour nit ñepp man cee jot ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp ci turu kilifa yi ñun nak lañ waroon def def nañ ko bañu bañu yégué inscription jotu ñu sax xaar ñu dañu dugg ci lien bi daal di inscrire pour jox une bonne exemple pour nit ñi waré nak li lu wor la ñepp ci wara engagé wu ñi ngi sant ñepp di gërëm salaamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum mbokk yi ñi ngi leen nuyu kenn ku ne turam ak santam di nuyu personnel bi nga xamne ne nekk ci poste bi ah di rafetlu timit euh, vraiment vaccin bi nga xamne ñëw ñu ngi koy rafet lu baax ndax euh, vraiment am na solo lool ah man nag euh, maa nekk Salla Lo chef du village euh, nekk coordinateur les chefs du village ba pare teewal fii cinquante six villages yi nga xam ne ñoo ne ci commune Thiamène Kayor ah di wax rek na ñun ànd nañ ci vaccin bi te lu luñ ci mën a mobiliser nit ñi pour ñu vaccin ci dinañ ko def ndax am na solo ndax nit moom lépp loo xam ne mooy sàmm wéradi ak wér loolu lañ ko topp ba fexe ñëpp ku fi mu nekk rek ñu jéem a fexe ba nga vacciné ah di leen di leen gërëm di leen sant di wax ne turu chef de village yëpp joxe nañ ma kàddu ñoom démb bi nga xamee ne message bi jot naa ci ci laa woo chef de village yëpp ñu ne naa fi teew ah bu lépp loo xam ne jóge na fi rek bu ko defee ñun danañ leen ko rendre compte su ko defee ñu taxaw ci vaccin bi ah, ñëpp vacciné ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ah ñett bi daal li may sànni ñëpp message bi may wax daal moom nañ ñëpp ñëw parce que ñett moo amul benn gàllankoor. ñàkk amul gàllankoor te doo ko yëg mel na ñàkk pare fi mu dool kaata xam moom moo ko moo ko gën a sax fuuf mhm. waaye wax dëgg baax na lool daal na ñëpp maanaam mu sañoon ñëpp ñëw ñàkk parce que nguur gi du jël loo xam ne day rey ni ay ay nitam mu koy def loolu kenn du ko xal kenn ko nit ñuy xalaat ak réseaux sociaux yàq di yàq rek mais loolu li ñu wax lépp dara mu si waaw. jërëjëf jërëjëf Mor moo yor wàllu programme bi dañuy dem ci keneen koo xam ne c'est un représentant de la jeunesse nekk moom it koo xam ne si mooy mbay Sall mbay euh, gis nga tey la lancement officiel bu vaccination ci poste santé Thiamène bi personnel bi jël nañ seen vaccin ba pare euh, léegi nag ñu waroon en tant que ndaw ban message ngay sànni sa mbokku jeunesse bi. voilà merci Bamba d'abord ñu di leen nuyu. di rafetlu aussi seen liggéey euh, comme ni ngeen koy defee saa su nekk donc di rafetlu aussi lancement campagne de journée de vaccination bi comme ni mu amee fii ci poste de santé bu Thiamène ñëw nañu fekkee ko euh, gis nañ aussi ne personnel soignant bi ñu ngi jël seen première dose war a jël seen deuxième dose dans quinze jours donc c' est l' aussi pour ñuy lancer un appel ak ñi nga xamante ni mooy les personnes yi nga xamante ne nii mooy troisième âge yooyu aussi ñu préparé wu euh, ñëw jël seen dose ñoom tamit comme ni ko ñuy defee ak ñi nga xamante ne nii aussi mooy comorbidité yi ni ñu ko waxee ñoom it ñu préparé wu mën a ñëw aussi fii ci poste bi jël seen euh, vaccination donc pour ñu àndandoo ensemble mën a xeex li nga xamante ne nii mooy Covid 19. salaamaaleykum wa rahmatulah jaar naa leen yéen ñëpp vraiment di nuyu waa Emedia TV su ñëw tey pour euh, génn li nga xam ne mooy vaccination bi ñu fiy def. bon vraiment di wax rek di sensibiliser ñëpp mhm. comme niñ ko gisee au niveau national ñëpp jël seen vaccin ci ministère de la santé ak ñëpp fii aussi gis ngeen euh, ICP jël na première dose charge mhm. femme et charge femme ñun ñëpp jël nañ di wax rek di rassurer vaccin yi moo amul benn problème nit ñi li ñuy wax euh, la plupart passé que réseaux sociaux yi moo tax euh, ba nit ñi di wax loo xam ne vraiment amul ci vaccin yi donc ñu gën a seetlu rek ñu bañ a topp wax boobu gis exemple yi nga xam ne jaar na fi tey nit ñëpp ku fi vacciné aussi amul benn effet secondaire amul dara donc euh, di wax rek population bi euh, ñu gën a xoolaal seen bopp rek bañ a xool li nga xam ne mu ngi xew ci Sénégal ak parce que boo xoolee ma pays yëpp presque ñu ngi vacciné wu gisoo benn problème mais fii tey boo tuddee vaccin sax ku ne dinaan na vacciné wu vacciné wu donc euh, xam naa rek peut-être euh, li ñuy dégg aussi moo ko waral donc euh, loolu ñun ñi euh, ñoo war a taxaw aussi gën a sensibiliser population li nga xam ne mooy deuxième dose bi day ñëw après pour nit ñi vacciné wu ñu ñàkk ñu xam ne parce que ñun ñi sax jël nañ première dose mais après ñun dañuy jëlaat deuxième dose ci deuxième dose population xam naa ci la ñu a jël ñoom tamit donc di wax rek ñoom ñëpp ñu génn vacciné wu en masse pour ñu jële fi covid 19 parce que même bu dul dara covid 19 causé na fi loo xam ne tey nit ñëpp ñu ngi toog kenn mënu def sa activité normale ndax covid 19 en masse commencé takk mask rek je pense loolu lépp après dañ ko jëlee fii incha allahu rabbi. jërëjëf euh, monsieur jërëjëf euh, Baye Cheikh moom ci kaddu relais yi peut-être danaa la jox yow moom yaay xam ne yaay doyen wu relais yi ASC yi ak yëpp Baye Cheikh jël nga sa dose ba pare. waaw jël naa sama dose alhamdulilah. yow mi nga xam ne da nekk ci case yi vaccination di la fa fekk tey yàlla def na ñu ne tey mag ñi nag ñooy vacciné te xam naa ne ci lu yàggoon vacciné wu jafe woon na waaye léegi yomb na ci mooy yeneen programme élargi de vaccination tey nag wàllu Covid lañ indi. te yow ñàkk nga pare ban kàddu ngay sànni sa mbokk relais yi ak ñi nga xam ne si ëllëg euh, seen wàll dina ñëw. waaw ñun li ma sànni mooy ñàkk moom du ñàkk moom yàgg na fi am ba mu fi njëkkee am da gënoon mm-hmm. ñu dem ba ñi di am ay feebar yax feebar bu am fi mm-hmm. yàlla def na feebar boobu amuti fi woon te dara war lu ko lu ko fi jëlee ñàkk ko fi jëlee mm-hmm. mooy ñàkk bii am tayit bii am tayit ku ku ci ku ci continuer yàlla mën la dimbale affaire bi da nga koy dégg waaye doo doo ko gis kon na góor leen fas yéene jël sama mbokk relais mbokk ASC yi nañ jël nañ jël nañ ko jël ku ji jël da ngay perte de. jërëjëf Baye Cheikh euh, xanaa ñëwaat rek euh, su koy ne bu dee dafa am ay précisions yoo bëggoon euh, indi tey yaakaar naa ne ñu ngi toll ci numéro neuf huit vacciné wu nañ ci neuf bi mu war a toog nii diggante relais ASC maanaam képp ku yëngu rek ci wàllu wér-gu-yaram. waaw di di remercier waat m TV bi nga xam ne moo fi ñëw nii couvrir ni sunu lancement bi may préciser rek ni ñakk yi premier cible bi mooy personnel bi nga xam ne ñoom ñooy faj ñiy faj ñoom ñooy njëkk a ñakku mais teewul am na ñoo xam yeneen cible yoo xam ne wax nañ incha allah bu dose yi ñëwaatee dinañ ñàkk mooy ñan mooy nit ñi nga xam ne am nañ juróom benn fukki at jëm kaw que am beneen feebar dëkkaale wala déet ñoom incha allah dinañu ñakku ñoom ñooy deuxième cible bu beneen vague bi ñëwee ñi wax ne ñàkk yi aussi itam pour nga pour mu aar la il faut que nga jël si ñaari dose intervalle bi si fukki fan ak juróom lay doon il faut nga jël ñaari dose interval intervalle fukki fan ak juróom waaw loolu laa bëggoon préciser di wax ni ñàkk yi tamit yaakaar naa ni euh, lu am solo la lu am solo la di remercier bu baax le président Macky Sall bi nga xam ne moom moo jën ñàkk yi indi ko fii te jël en première ligne euh, personnel santé bi nga xam ne ñoom ñoo nekk en rapport ak population bi ñoom ñoo xam ñoom ñoo ñoom ñoo gën a exposé moo tax ñu njëkk leen a ñàkk bu ñu leen weesoo mooy ñi nga xam ne personne vulnérable mooy ñu naan troisième âge bi mooy 60 ans et plus yi deuxième troisième cible bi mooy ñi nga xam ni amaguñ 60 ans mais boo xoolee am nañ beneen feebar dëkkaale comme asthme wala tension ñoom aussi tam si cible bi lañ bokk waaw pour préciser baax. noo gisee vaccination bi. ah vaccination kay wax dëgg yàlla macha allah yal na yàlla defal ñu si jàmm ak tawféex ba lépp luñ ci sàkku rek yàlla defal ñu ko si jàmm ak madame Ka yow it euh, a ñakkiima eh, mi ñakkiima hono jiiruɗa ñakka golngol ñakkoɗa ko ɗum hunde nde ganduɗa ko ɗum hunde moƴƴere tan yewtodirande en yeeso président o sa yi waari ni ko yidde tan yo janggara o yaltu lesdi ndi gontene jaam ɓolo ɓoccol o mo gonduɗen hanke heccanke ko ɗum hunde moƴƴere kalɗo ɗum tawi neɗɗo si haninoma tan façoyene ñakkode hen daka dañen cellal ɓandu men e cellal sukaɓe men a jarama euh, seneɓa enenne garanma annene a ñakkima eyyi min mi ñakkima bamba ba hono jiruɗa ñakko o kam e hande ni no wiyaɓe ɓeñ safratɗe yimɓe pooti ide ñakko onon garɗon mbiɗon on ñakkoto polironde wonde ɗum woni ko rewi bolol eyyi ko tagui komin iɗi arde ko hamin pamina yimɓe tan ɗum koko moƴ saabu so yi présida ƴetti ɗum waɗe a askan hen pour yoɓe ñakka ko yo ittu jangoro gondo, do kala ngando da do dum ari ñakka bis ɓisgu ma la bis ma ko yo ñaso sabo dum ko dum ballal yal ngal ganduɗa so yeeyi tan hayna way en ba ɗum so den non en jetti alla en jetti ɗum yo fof en merci wassalama ñu dem ci mariama mariama uh, touré momi jogo do geeli mariama a ñakkima mhm. ñakima kay ñakuna xama message eh, ko reji men hal pular pour golle ɗen wal ko ko wodi solo himbe ka arbe ñakko your work mbeɗan mi ɗumen tan ko yoɓe ñakka saabayi minen min ñakkima si tawno koko booni wonda mi wonda mina minen guidoto ñakka te ɗum additake kadi e nder lesdi hene ɗum itta ɗo yimɓe foof ko ganduɗan hoore ma koko waɗata walla ko weeɗata janggaro ɗum weeɗatake pour aduna foof sabay sa yeeɓi télé foof en heɓe ñakko yimɓe joomen dow leƴƴi fof heɓe ñakko yoɓe ñawdoɓe fof soɓe ɓe ñakkima neɗɗo foti ko susde reedu tan ñakko saabu koko ñawdata tan ɗum ittana en ɗo o janggaro o janggaro kala ko dañɗen en ko ganduɗa ko hore ma sen ko ko ittata dum do hina foti mbaden dum itta dum do sabu janggara o guila rowane ha joni homa en sawtini homa en bonnani ko heewi si en dañi ko ittatamo non hay si tawno ko warata en fof foof potnoɗen bon wadde bon dum waro en den sabu mbo sawtini en merci wa assalamu aleykum ma ngi nuyu ñep di ziar ñep kep ku fi tew rek nuyu nañ la gëreem la parce que wax deug yalla ñep dañu bàyyi sen yitte ñew fekke ouverture bi kon ñuy sant yàlla bu baax di sant suñu borom sant suñu président moom mi nga xamante ne moo gëstu ba nga xamante ne am na Covid euh, Covid bi am na euh, garabam kon loolu dañ ko ci sant di ko gërëm di yëgal nag euh, askan wi yëpp di leen wax na leen lii amul benn jafe-jafe parce que sant yàlla bu baax ndax lii leen doon wër ñu ñëpp ku nekk bëgg ngaa dem nekkaat ci sa activité yi nga nekkoon kon bu ñu ngi ñaan di ñaax nit ñi képp koo xam ne population bi bu fekkente ne vaccination yi ñëw na na ñëpp àndandoo vacciné amul benn effet secondaire amu ko ci na ñëpp àndandoo kon ñu ñàkk loolu la ñuy euh, ñaax askan bi di leen ko dénk. bokk ci district sanitaire bu kokki di remercier waat euh, docteur Diouf ci vraiment disposition yi mu jël ba vaccin yi ñëw à temps nit ñi di vacciné wu ñu ngi ko ci gërëm ci ni mu encadré mbir mi moom it mu dem ba région médical jële fa wàllam région médicale génne ministère. ministère aussi le président de la république moo dox relation yi ba jot seen vaccin kon ñu ngi santaat euh, di gërëmaat ñëpp rek di leen wax incha allah rabi fekki fan euh, dinañ dugg nag def euh, vaccination de ay masse Aïssata Aïssata en tant que matron nekk fii ci case bi poste de santé yow it aƴetti vaccine mo fa eyi eh, bamba min mbiyami yimɓe tan ko yooɓe tinna ɓe ƴetta ñakka o mm-hmm. saabu ñakka e si ƴetti allah hen ene wawi muslo a coronavirus o mm-hmm. min mbiɗa waɗi yakar koɓe mbi ko a ñakka he taweeno ko ɗum ko ɗum goongo président o nanata ɗum a leydi saabu yimɓe ɓe ko ɗum yimɓe muɗum sikku tan ko ɗum ko ojo nannaɗo o ko ojo o heebi yakko yimɓe mbaɗanno ko kono min dal jamin fulɓe mm. ko ñakke ñakkon sukaɓe moɗon garen koye men allah heno wowi si en ñakkima ɗo balɗe seeɗa allah heno wowi korna o yalta sénégal mm-hmm. yo allah wallu en ñakka ɗen mm-hmm. allah yalten en addow jaam o feebare e barka sahal juma président de la république nu mu gën a gaawee nag askanu soxla na ko comme ni ko Adja Aram waxee sànq euh, euh, oustaz Sidi wax ko sama papa euh, Baara Ndiaye wax ko représentant de chefs de village wax ko mooy askan wi moom soxla nañ seen wàll ni mu def ba am deux cent mille doses yi ba jëlee ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla jàppalewaat ko aussi ba mu am yeneen doses yu yokkee ko nit ñi jël seen wàll ndax ndol ni ñii buñ jëlee te li des ci population bi jëluñu du am njëriñ mais ñi ngi ñaan rek yàlla dimbale ko ba mu jotaat vaccin yi ci lu gën a gaaw ba ñëpp jël seen wàll ndax daf mel ni ñi xam nañ ni nekkutu ay caaxaan. salaamaaleykum wa rahmatullah euh, c'est une très bonne initiative parce que wax dëgg yàlla loolu on on s'y attendait comme ni ko ñëpp di xaare moom lañ doon xaar ah bi ko fi yàlla indee nag kon alhamdulilahi rabbil alamin yaakaar naa ne li ñuy wax naan wàññi ci sa weewu tànk comme ci waa santé yi ñoo commencé ci seen bopp ah ñun ñi nga xamne ci ci moteur bi dañuy lonk rek ñun ñëpp ñi ngi def appel pour que ñu jog taxaw te xam lu ñuy jariñ la parce que jariñ bu tawee buñ ko commencé ci seen bop pour ar vraiment ñun tam pour ar suñu bop ku ar sa bop aaraale nit ñi wax dëgg yalla kon ñun ñëpp dañu wara jog pour ar suñu bop kon nak ñi ngi def appel ci ñëpp pour ñu ñew taxaw waxtu ñu ci joggé rek ñi ngi ko santaane ñu defe ko parce que nit ki moom euh, sama bopp du euh, moom la gënal du bañ naa la te wax dëgg yàlla ñoom tàmbalee nañ ko ci seen bopp ba pare woote ci nit ñi kon nag nañ ci daal di sóobu def ci li ñu war ci population bi aussi ñu xam ne fàggu moo gën faju te duñ ñuy fàggu du ñuy fàggu kon nag jekki ba mu dal la ngay faju ji te dégg ngeen li ñu wax ci faju bi ku nekk dañ lay da ngay moytu kon nag moytu bi nag moom commencé nañ ko ci suñu bopp mooy ñu commencé aar ci suñu bopp balaa ñëw di dal ci suñu kaw merci